ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman kasira wa baadu ayuha almushahiduna ah, fi Talfas Al Mourchid Seneinfo nuhayyikum jamian bi taxiyati islaami qaa'ilan lakum assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu fa darsana alyowma wa huwa tafsiru alqur'an mbokk julli di gannaaw ba ñu sant yàlla ba julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ñu leen da beneen paas te mooy mooy xam-xam bi gën a kawe ci téere yi wala ci mboolem xeeti xam bi yi tafsir alquran moo ci gën a kawe alquran nag yàllaa ngi jële lépp ci law lawhu mahfuz wàccee ko ci asamaau dunia ci place bi ñuy wax baytul muy wàcc nag ndànk-ndànk ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam li njëkk wàcc mooy iqra bismi rabbik da wàcc ndànk-ndànk diran ñaar fukki at ak ñett moom la yonent bi am ci nubuwa gi moom la alquran loolu la alquran wàcc si moom vingt-trois nag moom la ñu njëkkee fatiha boobu dafa wàcc ñaari yoon wàcc na Makka jamono ji nga xam ne farataan nañ ci yonent bi julli wàcc na Madina jamono bi nga xam ne ñu ngay def taxwiilul xibla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Makka bee bu ñëwee Madinatu Munawwar bees bu daan julli daf daan julli ca baytul maqadas ñu dem jamono ñu wëlbati ko na ko jublul ca Kaaba ga fa walli wajhaka shatra masjidal haram wa haytuma fa walloo wujuhakum shatra fatiha nag alquran yëpp sekkare bi ñu ngi ci biir fatiha ci biir fatiha ci leen dugal sekkare alquran fatiha lépp sekkareem ñu ngi ko dugal ci bismillahi rahmani bismillahi rahmaani rahim sekkereem ñu ko dugal ci baaxu baaxu bisimi gi baa boobu ci la lépp nekk ci la borom xam-xam waxee bii maa kaana wa bihi maa yëkkoon ci baagoog lépp lu paase ci la nekk lépp lu ñëwi mu ngi ci baag yi loolu nag neex naa dégg ndax yow muy bind lépp lu ma mën bind moo xam arab la moo xam français la moo xam anglais la mbind moo mën a bind fokk nga indi baay bi soog mën a bind baay ci nga njëkkee soo continuer sag mbind moo tax bii maa kaana wa bihi maa yëkkoon ci xam-xam yem faatixatul kitaab nag bari na tur danga ko di wax sabxam minal masaani maanaam sabxam masaani luñ ñaar ñaaral ñu ne ñaar ñaar bi liñ ci namm wàcc na màkka wàccaan madina kon ñaar ñaar la dañ ko wax da nga tuddee loolu dana tuddee alf da moom faatixatu kitaab loolu tax ñu tuddee ko faatixatun ndax mooy miftaaxul kitaab mooy caabi alquran al aziz dañ ko tuddee ba tey faatixatul kitaab mooy xubluwaayu téere bi dañ ko ba tey al dee nga ummul kitaab wala ummul quraan lay wax li annahu bi biha mu ubbi al quraan bi dañ ko tuddee sóoratul ndax dafa nekk ak ndàmb moom fatiha ndax dafa wàcc jee ko ci ndàmb loo xam ne mu ci suufu xarash moom fatiha dañ ko tuddee alkaafiya muy fegal doomu aadama bi bépp jafe-jafe lépp lum ragal fatiha lu mënta fekk amul lu ko mën a fegati waaw dañ ci ñëw kanam dañ koy tuddee alwaafiya waaw dañ ko tuddee hit moom fatiha ashaafiya day saafara mboolem xeeti jàngoro bu nekk ci doom aadama moom fatiha boobu euh, euh, dañ ko tuddee ashifa saafiya da ko tuddee suratu shifa saaru saafara lima warada ñu ne hiya shifaun min kulli da fatiha day saafara mboolom jàngoro bu nekk ci doomu aadama lum rëy rëy rëy lum jafe-jafe soo gëmee ne faata bi mën laa faj rek ma dégg daan la faj dañ koy tuddee sabxol masaani ndax faatiha juróom-ñaari aaya la dañ koy tuddee ba tey moom faatiha boobu annuur muy ji firi leer dañ koy tuddee moom fatiha ar ruqiya ndax dafay mocc ndax saxaaba yi bay génnee dem ci benn dëkk ñu ñàkkee leen fa gan ganaluxuñ leen euh, kilifa dëkk ba jaan màtt ko ñu def pexe ba sonn mu tëx wàcc ñu ne neen dem ci gaayee ñooy daal ay sang lañ banam xar xanam yu rafet yooyu banam ko xam xanam yu rafet nañ ca dem ci ñoom ban demee ñu ne ah kenn ci ñoom na ko ah lu ko wàcc de mu fi waaye ne il faut ngeen feeñu ñu ñaata leen da fay ñu ne ko da ngeen ñu jox lu toll ci fanweeri gàtt fanweeri xar muy trente xar ñu d'accord ñoom waa ji mocc ko ba jaan ji wàcc moo nag balaa ma cee def dara dinaa dem ba ci yonent bi salaata ma ko ndax li ma def yoon la wala du du yoon bi ñëwee yonent bi daf ko xam ne ko maa yudrika annaha ruqiya lu la xamal ne faatiha ak mocc la lekk leen ci bam lew na leen te jox ma suma wàll fukk baam ñaar da nga tura de suratul hamda wa shukur waaw xam gi firi ak sukkur ji firi fukk baa ñetteel dañ ko tuddee adduxan ndax dafa nekk ñaan fatiha fatiha boobu dañ ko tuddee ah, ci fukkeel baa ñeenteel dañ ko tuddee taxlimul masalat waaw ndax mooy xallu masala yëpp fukkeel baa juróom dañ ko tuddee suratu jaat ndax ku ko jàng mucc nga fukkeel ba juróom benn da tuddee sóoratu tafwiid waaye itam dañ ko tuddee moom faatiha boobu sóoratu su'aal dañ ko tuddee sóoratu umul kitaab dañ ko tuddee sóoratu faatihatul qur'aan dañ tuddee ba tey ñaar fukkeel ba dañ tuddee as-salaatu li xa dégg nga li xabarin xusimat asalaatu ca hadis booba kon daal fatiha bëri na aw tur usolu yoonu yi dañuy wax ne kasratul asma tadullu ala sharafil musamma bëri tur ci benn jëmm la mooy tegtale dafay tegtale teddu jëmm ja waaw soo ñëw nag ci firi moo xam ne du nekk lu yaatu bu ëpp bismillahi ci turu yàllaay commencé suma wax ak sumay jëf lépp looy def na turu yàlla jiitu booy lekk waxal bismillah bu ko defee seytaane du bokk yow ñoom wax waaye boo waxul bismillah seytaane ñëw bokk koog yow doo am benn wét gu yaram sooy naan waxal bismillah seytaan du bokk yow ndox ma sooy dugg sa kër waxal bismillah seytaan yi dëpp na laa ma biitala naa te am fi fanaanu waay booy tijj sa néeg waxal bismillah booy dugg neyu ña nekk ba pare wax bismillah bismillah ngay wax daa de wax asalaamu alayka ayyuhan wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin soog a wax na soog a dugg booy toog salal waxal bismillah booy jog waxal bismillah sooy taxal làmp waxal bismillah sooy fay làmp hit waxal bismillah booy dugg si wanag waxal bismillah boo dee ba jóg wanag wa waxal bismillah daal di jàng ñaan nga la fa nekkoon ci wàllu seytaane dana daw ba nga xam ne boo daanu ci war wa sax du la wàññi dara waxal bismillah allahuma inni audu min al wal xabaais booy génn waxal bismillah xufraanaka alhamdulillahi allazi ashaba xanil asa wa xafaani kon daal lépp la def rek jullit ba sol yére waxal bismillah booy sumi yére ba waxal bismillah booy yëg ci minbar waxal bisimilah sooy wàcce waxal bisimilah booy booloo ak sa soxna waxal bisimilah ñaan-ñaan nga bu njaboot gi ñëwee dafa njaboot goo dafaa nekk njaboot goo xam ne njaboot gu barke barke lay doon ak yeneen saaju yëpp ci fatiha ci wax bisimilah arrahmaani yàlla moo yërëm bépp jaam ci àddina ku ko nangulut ku ko nangul ak ko nangul yëpp ci àddina bi yaa ngi si yërmande yàlla ñàkk gëm yàlla du tere nga nekk ci yërmande yàlla ci àddina bi waaw arrahim nag yàlla mooy yërëm ña ko soob ci àllaaxira te mooy jullit ñi wa kaana bil muminina rahima bu ko defee borom xam-xam yi nee nañ yërmande yàlla bu doon téeméer juróom maanaam benn bi wàcc wàcce ci kaw suuf doomu aadama yi ci la ñuy yërmante yi ci la ñuy ba xayma yi ci la ñuy yërmante lépp luy ndundat ci la yërmande du doxee seen diggante euh, euh, beneen bi nag euh, quatre-vingt-dix-neuf yi yàlla mu ngi ko denc bàyyi ko denc ko xadoo ko julli ni keroog yomal xiyaam ndax foofu la yërmande du ëppee doole mooy raxiim alhamdu cant fu mënta jëye ko lillaahi aji saxla ñeel yàlla rabbil aalamiina kay borom bindeef yi cant ñeel na yàlla boo waxe alhamdulillahi rabbil aalamiin yàlla ne dee nga suma jaam bi euh, sant na ma suma jaam sant na ma kon cant loo def rek Euh, boo lekk ma pare waxal alhamdulilah rabbil alamin boo naan pare waxal alhamdulilah boo tëddee ba yeexu waxal alhamdulilah euh, loolu tax mu sant rek santal yàlla del mooy yaa nga delloo mbir mi ci yàlla arrahman ba tey ñëwaat yàlla mooy borom yërmande ji yaatu ji ci jullit ñëpp yërmandem gi moo ëpp taw te taw nag suy wàcc amul fii taw naa fi démb fii taw ma fi démb kii dama ko tawal kii duma ko tawal day wàcc rek ñëpp tooyle yërmande ak sedd noonu la mel ñëpp a say jot ndax yërmande googu de moo tax ñu dund moo tax lépp da dund moo tax àddina bi nekk fi wallaay boo taxatoon na yërmande boobu boo àddina bi tukkee yàgg na waaw ngelaw li ñuy nooy rek yërmande gu ci nekk kenn xamunum toll yàlla may la wér gu yaram jox la xel nga xam nooy liggéeyee nooy mën a amee noo mën a toppatoo sa bopp noo mën a toppatoo sa njaboot yopp rek yërmande yàlla arrahim yàlla mooy yërëm doo maa jullit ni ci yomal xiyaam ndax itam yomal xiyaam yërmande yàlla dong lañ fa yaakaar kenn bu ku fa ñëwee pour sa jëf rek da daanu dafa am benn waa bu nekkoon ci bani Israël dundoon juróomi téeméeri at la dund boole ko da jaamu yàlla rek da jaamu yàlla rek ma doon liggéey ba mu génne jamono yàlla na ko ma àttale ci sa jëf walla ma àttale ci suma yërmande mu ne ko ah man kay bi yow nga ma suma jëf yàlla na ko waaw yow de air ba nga doon nooy mu neex lool ci yow loo ma ci fay waaje ne yàgg mu ne ko ndox ma doon dawal nga cee naan da ci sangu loo ma ci fay waaje taxaw na xoole mu ne ko maanaam amoon na benn garabu pom bu fi nekk bët bu seen nga dagg ci benn pom bi mustarak da ci lekk pour dëgër lu mën a jaamu yàlla la ma ca fay waajana yàgg waaw ci sa jëf da da nga daanu safara de bàyyil ma àtt la ci suma yërmande waaw maaliki njàngin la maliki njàngin la maaliki boo maaliki yoomi diin yàlla moo da aji moom bisu payante ba lépp lu fa xew yàlla moo ko moom boo ne nag maliki yoomi diin yàlla mooy buurub kerek yomal xiyaam mooy buur ba waaw képp lu fa xew rek lépp lu fa am rek mu nga amee ci ndigalu yàlla képp kuñ jéggal nga dugg àjjana te yàlla si yàlla boole yaa ngi ko defee ci ndigalu yàlla képp ku yàlla yërëmu tam yàlla ñu si musal mu dem feneen fa hit mu nga amee rek ci dégg nga yàlla iyaaka yow kese naxbudu la ñuy jaamu yow yàlla kese lañuy ñuy jaamu waaw bu def xasuru jaamuñ keneen ku dul yow iyaaka yow kese kese nastaxeenu la ñuy sàkku ndimbal ba ñuy xut ndimbal ci yow lañ ko xute ndax yow rek yow yàlla yaa xam ndimbal keneen amoon dimbal dina wan ñu gindi ñu siraata asiraata ci yoonu almustaqim bu jub kocc te mooy diine islaam yoon islaam teg ñu ci yoonu islaam bu jub kocc ñu tegu si si njaboot tegu si bañ dajeeg yow am sa yërmande yal na ñu defal loolu allazina mooy ña nga xana ña xam ne an'amta xéwal nga alayhim si ñoom yaa leen xewala loolu xayril maxduub te mbir moom nekku ñu jéppi ñañ jéppi ña mooy yahud ya xaleyim ci ñoom wala doolina te nekku ñoo xam ne aji réer lañ nekku ñoo xam ne ba tey dañuy réer da réer le muy nasaraan yi kon daal te ñu ci yoonu siraata mustaqim bi nga xam ne koo ci teg rek mu mucc te du nekk ñoo xam ne dag ñoo jéppi wala ñuy sànk nit ñi ndax am na ay imatul liin ay kalifa yoo xam ne lañuy wax seen njaboot dara nekku ci dëgg réer nañ réeral seen njaboot loolu nag yàlla nañu ci yàlla musal loolu daal moo doon firig faatiha ci gàttal bu gàtt nag kon mbokk yi ñu taxaw foofu incha allah ba beneen yoon ba ñëw ah, lu ci jum nag ci yàlla la lu ci dëngatu ñun la wa sallallahu wa sallama ala wa habibina wa nabiyina muhammad wa ala wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا